Eh, ñu ragné ci lool eh, xaritam magam Seyna Mañon Lay ibnu Sherif Abdoulaye Thiaw nyamnya ñom ñaan ñu jité won délégation bi ci ñaari wër ak fukki fan dem ci Italie eh, Espagne dem ci Belgique dem ci France solo ci mom bari na way liñ ci mëna a moy Italie bañ dem euh amna amnañ ci ay mën naa ni sax ay raaya yu bari euh ginnaw biñu santé l'ambassadeur Pape Abdoulaye Seck ak le consul euh, Mouhamadou Lamine Diouf euh, am na ay waxtaan yu bari yuñ fa am euh, résultat biñ ci njëkk am mooy biñ demee Napoli gis nañ le directeur de l'immigration bu Napoli ñu waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi suñu mbokk sénégalais am moom mu jàpp ni dina ci taxaw

mooy Thierno dem Vatican pour gis pape bi pape bi am ku mu ko booleel ñu waxtaan ci jafe-jafe àdduna yi. Emmanuel Macron da doon wax euh, pape bi mu wax euh, euh, parce que kàddu diine mën naa am solo ci àdduna bi kon kàddu diine googu moom la nu porté waxtaan kook evec bi pour ñu xool lan lañ mën a saafaraa guerru Ukraine. ñu jógee foofu demaat Ravenna am dëkk boo xam ne dañ faa dem mu tudd Ceprano. bi ñu leen nee ñu ngi ñëw nee nañ ñoom wër nañ fofu sénégalais mais amul sénégal dëkk bi yëpp wër nañ ko mais amul sénégal mais dañu bëggoon gis ak benn sénégalais pour mu wax ñu euh, nan lañ leen di accueillir yi rek nan lay demee prano boobu yóbbu nañ fa benn maire muy le maire de euh, Kayar lënkoo ak lënkaloo ak moom biñ demee Verdelo aussi yóbbu nañ fa le maire de euh, Grand Yoff pour mu ñu ñu ñu lënkale leen donc liñ doon dox mooy fexe ba sénégalais yi nekk benn sénégalais yi bañ a am jafe-jafe wala jafe-jafe yi ñu am ñu xool nan lañ koy saafara mais fexe aussi ba sénégalais yi ñu xam ni seen dëkk ñu ngi leen di xaar et war nañoo mën a dellu seen dëkk ci xam-xam ak euh, njàng gañ fa am pour mën a tabaxaat seen dëkk donc loolu lañ def itali loolu lañ def Espagne loolu lañ def Belgique loolu lañ def loolu lañ def France amaat mbégte lool parce que dafa am lu bees ci tournée bi parce que nee naa ren mooy juróom-ñaareelu édition bi ceenu du ko def mais ren dañu dañu dañu am benn wàll bu dugg ci biir tournée bi mooy wàllu université te université fu mu nekk rek eh, caaxaan am fa kon mbir mi mi gën a yéeg te jàpp nañ ni ensemble li ñu doon dox di ko wax di ko di ko di ko di ci di ci di ci yëngatu te kenn du ci nekk suba ngoon muy mbégte doomu aadama universitaire dinañu gën a dimbali pour ñu gën a yëkkati niveau bi ba ñu mën a xam lan lañuy def ak nan lañ ko bëgg. maanaam euh, tournée bi Thierno daan def euh, dafa war a am jeexital ci euh, ci ci ci ci universitaires yi li mu bëggoon xam mooy am na ay ay questions ay interrogations yoo xam ne war nañ ci mën a war na ci mën a mën a gëstu ci ci jiitu mooy dañoo nemmeeku de plus en plus que nitu nitu diine yi seen baat. dafay gën di am solo ci crise yi nga xam ne àdduna moom lay traversé boo xoolee crise euh, crise euh, immigration bii eh, benn la ci crise yi ñuy wax te Thierno def na deux mois à l'étranger pour jéem a waxtaan ak euh, autorité yi fa nekk ak tamit immigré yi yi fa nekk pour ñu jéem a toog xalaat ensemble pour trouver ay ay solution comme pourquoi pour que seen seen dundin foofu mu mën a mu mën a kii mu mën a yomb. voilà euh, bo xolé ça lolu moy objectif bi parce que Thierno euh, ñaari weer a ngi nii ñu ngi wéccio ci voyage bi euh, léegi dañoo xelal ne ko ligéy bu mu def dafa dafa am solo dafa am solo trop mais il faut que mu déplacer ko ci cadre universitaire ci na manam gëstukat yi ñëw ñu andu bolo jema set naka lañuy ñuy ba suñu dundin ci ci kaw suuf ak fuñu ñu bokk. mu nekk dundin dundin boo xam ne dundin bu dundin dundin bu yomb la waaw kenn ku nekk am sañtan doon lu mu lu mu doon waaye kenn ku nekk tamit am devoir nangul keneen ki lu mu doon ndax suñu dund ci kaw suuf mu mën a yomb xanaa sant leen bu baax a baax si surprise bu rëy bi nga xam ne euh, def ngeen ko euh, mu bette ma lool nag mbetteel bu neex ndaxte ñaari weer yoo xam ne def nañ ko ci àll bi man ak yéen ñoo ko nekk ndoo woon ñoo ko dundoo woon ndoo woon dundin bu neex waaye bu metti it ndaxte soo jógee sa kër rek euh, dem si beneen bërëb bu dul sa kër rek dèjà méttit dugg na euh, ndaxte yonante bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon wax kon suñuy soo leen ma jiitoo ñëw organiser lu mel nii euh, du ma mën lu dul sant leen gërëm leen ci waaye gërëm it docteur Diallo bi nga xam ne dégg naa si waxu Bachir moo am initiative bi muy ku xereñ ko yàlla may moom tamit am taxawaay bu rafet ba lii mën a am Euh, tournée bi alhamdulilah rabil aalamiina jóge nañ fi si bisimilah rahmaani rahiim egg si nañ fi si alhamdulilah rabil aalamiina di sant njiitu réew mi le président Macky Sall si yombalal ba nga xam ne yombalal nañu ko si administration ba yëpp mën a jaar yoon moo ñu yombalal ba ñu mën a jot si affaires étrangères yombalal ñu ba ñu mën a jot si ambassadeurs yi nga xam ne ñoo ñu dalal ñu sant ab administration locale yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi yëpp donc li ko dalee Rome. Euh, Napoli euh, euh, Bergamo ba Belgique yëpp ñoom ñëpp ku si nekk béy nga sa waar si assistance ba mu mat sëkk lépp loo xam ne waroon na si sa diggante ak ñun def nga ko ba mu mat sëkk gàttandu nañu teeru nañu assisté nañu jàppale nañu kon wax dëgg yàlla su tournée bi amee réussite bu baax a baax seen jàppale it mi ngi ci waa di jàppale di sant it bu baax a baax suñu njaatige yi suñu njaatige yi mooy si président daayira yi wala njaatige yi nga xam ne ñoom ñoo ñu dayal dalal ñooy organiser cérémonie yi ñooy organiser waxtaan yi tey ñooy mobiliser nit ñi ñooñu tamit ñu jara dalal lañu mënuñu leen lim parce que dafa bari waaw di leen sant bu baax di sant diaspora bi yëpp yëpp yëpp ba mu ba mu daj bàyyiwuñu kenn ah, di sant bu baax di leen ñaanal yàlla it yàlla sàmma leen suturaal leen fa tabarakallahu liirale woon dem nañu si jàmm ñëw nañ si jàmm diplomatie religieuse lu neex la tey ji mën nañu wax ne ndam am na ci diplomatie diplomatie religieuse ndaxte diplomatie klaxer ka la ñu doon dégg waaye tey diplomatie religieuse moo gën a gaaw moo gën a efficace gis nañu ko si sunu tournée bi ndaxte fépp fu ñu dem rek gis nañu administration bi waxtaan nañu ak ñoom te it la ñu doon waxtaanee ak ñoom la taxaw ñu dem am nañu ko fa. kon alhamdulilah rabil alamin sant bu baax a baax euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ma wër di ko dale si ñoom Babacar Ndiaye Imaam Sané Boubacar Keita Imaam Dia ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm fa tabarakallahu haza salaamaaleykum wa rahmatullah ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu leen notification